d' abord li ma la ci mën a wax mooy ñun bi ñu jotee information comme quoi suñu benn camarade dañ ko rey saint UGB automatiquement ñun ñëpp ñoo joxante information bi au sein de la faculté comme ñun ñëpp tout le temps la ñuy nekk waxtaanee ko bon ñenn ñi ñu ci bëri ci ñoom comme ñoom am nañ le sens vraiment syndical ku ci nekk ne vraiment c' est pas normal te ñun aussi waruñu nekk ñoo xam ne on doit rester indifférent par rapport à loolu il faut que nous que te parce que nous xew UGB Dakar d'ailleurs le mës de 68 la Tambalé avec Blondé en 2001 avec Balla 2014 avec Bassirou Faye et la cette fois-ci avec Serigne Fallou on s'est dit que c'est le moment que nous avons par rapport au cancer parce que nous continue là, donc ça ça commence à persister ci anam bobu lañ waxtane suñ biir ma and ak dadi ak quelques éléments ak gars dadi mo le président de la commission sociale ñu wacc campus bi ñu yegsee aussi commencé contacter suñu yenen camarades yi nek ci yenen faculté yi ne leen situation bi nak ni la démé fokk ñu réfléchir ñu xol entre temps ñu décider ne nañ leen dem ci faculté ñu arrêter d'abord cours yi parce que dañ koy naxarlu avec la manière bon comme étudiant yi kenn ku nek ak gis-gisam gaay yi ne nañ leen dem ci tali bi ñu ne nañ leen dem ci tali bi nak coutume la plan d'action bi moy wacc dans la rue non non top toppuñ sax suñu xalaat rek parce que ñun xam nañ exactement naka lay demee 2010 ba léegi ñu ngi université suñu autorité duñu ñu déglu mukk dul dañoo wàcc dans la rue je sais que bu ñu yemoon ci naxarlu ko suñu biir nekk rek wala ñu wax ci nii rek après dem ranger bagage yi tëdd duñ ko jox benn considération duñ ko fulaal mais soo déggee fulaal nañ benn affaire bu concerne étudiant rek c'est parce que étudiant yi wàcc nañ wane seen naxar ci mbedd mi soit ñu sànni xeer toj def ay cas pour ñu doog ñu mun déglu dañu dem ba benn moment nag dañu sentir ne kenn ku nekk si ñun mën na nekk ku mu doonul yow tamit di yow rek ala lañ rey mais en tant que président d'amicale parce que chaque jour bu retard bourse man wax camarade délégué dem wàcc ci tali parce que avant ñuy def loolu am chaque fois préalable autorités yi nga ne c'est des voies autorisées par rapport ak paiement bourse et tout par rapport ak problème universel dañ leen di saisir chaque fois à temps réel mais kenn du réagir budul daay gi dafa tàkk ça veut dire que quand faut ñun ñu taal daay gi pour ñu mën ñu déglu c'est la raison pour laquelle ñu wàcc dans la rue. d'accord mais lan moo tax euh, étudiants yi wàcc dañoo wàcc pour retard paiement wala dañoo wàcc mooy li nga wax parce que dañu yëg sommes seen benn camarade bu nekk saa yi ko. bon benn waaw motivation le mobile principal d'ailleurs par rapport ak wàcc bu spontané bi mooy rey bu ñu rey suñu camarade moo ñu gën a parce que mois le passé yep, bu ci nekk dem nañ ba le 16 ñun ñu wàcc front pour ñu fay ñu ci même jour bi à l'instant.

j'ai mis citoyen la sénégalais ñun citoyen sénégalais ñun ñëpp nous sommes des jeunes et nous appartenons à la même corporation donc euh, ben, peut-être man bénéfice nekkul ci ñuy réinter à jëmi mais sunu intention mooy nekk dem barrer la rue payer auto yi circulation bi taxaw pays bi ñëpp yëg étudiants yi ñu ngi de se na lu leen mais comme nous avons wàccee ci kaw bi pour barrer auto yi jëmi nous ñu réfléchir xooluñu nous métit fu mu pour nous donner une réponse dañuy sànni grenade lacrymogène wala nous jël des des des des armes yoo xam c'est déjà chargé di ko dóor suñu kaw donc que mu am riposte. d'accord euh, bërki démb la commencé Burkidem, Quand est-ce que commencé 14h moins. la nous commencé. donc nous ngi presque aux alentours de 19h et quelques vous les étudiants yi sonn dem tëddi le lendemain aussi on s'est réveillé le sang est chaud gars yi ñun ay jeunes lañ quoi kenn ku ci nekk décidé waat ne dañuy delluwaat dañuy delluwaat ci c'est talibé. donc loolu moom mooy problème bi ci sentir aussi li ñu ci seetlu li ñu ci gën le commandant quand il a voulu donner une excuse daf il s'est senti menacé moo tax mu tiré te ma yaakaar ne bu fekkente ne ndaw li étudiant bi da nga téye bourse beaucoup ko war a fay sachant que celui-là parfois pour la plupart d'entre nous ay doomu de lañ

bàyyi xelam ci conscience am que ki kii ndaw la loo xam dañ ko soxla ëllëg waru ko jox comme réponse woowal ko gendarmerie et d'ailleurs ci biir woo boobu contrôlé lo gendarme bobu ba xam lan la yor exactement nga gis ko mu yor arme buñ chargé avec une balle réelle lan la loolu wuti ci intervention benn waruñ len won fekk ci biir campus social ñuy demander lekk rek yàquñu édifice grève buñ defuñ dara dañu bëgg a sans ticket ñu indi len gendarmerie pourquoi c'est le recteur qui a qui l'a fait sachant que peut-être période bi mu koy def mom xamna na xel ne ci université boobu parce que li ci ëpp ci ñom seen dom yaangi peut-être France wala ñu ngi ci école yu baax yi nga xamne mën nañ fa fay am un bon diplôme peut-être dem gën dem ñun amuñu moyen boobu université publique sénégalaise ascenseur le mës a doon ascenseur social mais malheureusement tay nit yi amatuñ sax envie ñëw inscrire université ils préfèrent am seen bac dem chômage wala ñu xol neneen nuñ def parce que bo fi ñëwee rek métit nga fi jëlee ak nakar

fallait que nous def une intervention chirurgicale opérer bottom pour peut-être mon mën jusqu'à présent on présume que dina gis ci présomption lañ toll le médecin lim nous wax pour le moment a na ay soins ñu ngi xaar amna centaines de camarades mais lii moo mës di xew saa universel université bon on se débrouille ñun sommes biir pour la plupart du temps nous nous débrouiller sur biir yaa une dégg maintenant li may wax autorité bi tàmm na ko bi ñuy rey Bassirou fay ñëpp dañu jël turu Bassirou ki yóbbu ko dëgg la Bass moo ñàkk bakkanam ñu naxarlu ko ñun ñëpp mais moment boobu am na des centaines de camarades yoo xam ne nii ba fii may wax ak yow ñenn ñi dañu dàmm seen ay loxo ñenn ñi dàmm seen ay tànk ñenn ñi seen ay bët lañ tuuroon. d'accord am na koo xam ne dégg naa euh, testicule yi la lacrymogène yi woon information man mais je je sais que au moins tiim naa camarades étudiants yu bëri yoo xam ne seen tànk moo damm. ni seen bët lañ dóor ñii ñu toj seen R4 jémi ñoo def c'est la police nationale sénégalaise et je pense que si bu ñuy agir dañuy agir sous la coupole du ministre de l'intérieur c'est une personne que tout le monde doit interpeller indexer même du doigt s'il le faut. d'accord mais gis nañ tamit étudiants yi jàpp auto policier yi lakk ko ba pare jël seeni matériel. waaw xam nga lakk oto ngeen gis mais je pense que bakkan bi dem kenn mënatu ko jënd te suñu intention du lakk wala yàq mais dañu bëggoon barrer la rue mais su fekkente jemi nga moment bu ñuy barrer la rue da ngay ñew jox ñu comme réponse ay balles blanches des balles réelles ak ay grenades lacrymogènes ñun aussi li ñuy def moy la riposte la riposte elle est musclée mais quoi qu'il advienne na nit yi xamné entre l'attaque et la défense il y a toujours eu improportionnalité je sais que bakkan Bob, fetel bobu ñu yor York, mo gëna dangereux foofu auto bu ñu taal étudiants yi dañu mer fokk mu leer bon man matériel policier très sincèrement xaw ci lu bari man jëluma matériel policier parce que awma ci soxla mënuma manipuler fetel policier formé wuñ ma pour lolu soxlawu ma aussi ci biir campus social déjà c'est dangereux xawma nuñ koy manipuler soxlawuñu lolu lolu du intention étudiant étudiants yi soxlawuñu jël matériel policier pour mu leer duñ ay rebelle duñ ay assassin amnañ habitude aussi suñu autorité bu problème amé ñu indexé nit ñi né politique wala nangam foog mu leer amna ño xamné xam ne seen yoon ci politique man su ma yoon ci politique lijjantiwu ma sax les politiques je crois à mes études damay terminer suma master buma paré ma nek comme ñom lu ñu nekk wala ma nek lu raw lu ñu nekk et avec la bonne foi aussi ma nek ko xamné une personne d'éthique lay don et de morale c'est ce qui m'intéresse donc foog mu leer situation bi politique ken duggu ci étudiants yi ñoo dem ba sentir ne amatuñ benn valeur ci kanamu nguur gi ñu wacc ci kaw talib d'accord nañ nekatuñ à l'état à l'époque de l'état providence nga xamné da nga daan jàng ñu jël meew jox la jël tenue uniforme jox leen d'accord mais le minimum moy maigre bourse biñu am nañ ko par rapport à ce nouveau régime là on a senti une diminution drastique du nombre d'étudiants attributaires de bourse ça veut dire que même ñi en bourse ñu sommes ñi en bourse ñoy dimbalante seen biir bo téyee bourse bobu au delà du 15 du mois ça veut dire que ils sont au bord du gouffre